oui <laughs> waa grand. wuu tey nag moom. est-ce que am na euh, ginnaaw foli philosophie. est-ce que am na lu nekk ci ginnaaw folie. <laughs> Hmm? ah ah xanaa nga wax ñu ko. loo nekk ci ginnaaw. moom ah. peut-être. Euh, katakay ni quoi je sais pas katakay ni est-ce que katakay ni c'est la dimension que folie ndof est-ce que dof eh, est-ce que dof du du du du level bu gën a waaw waaw waaw le premier stat maanaam am euh, na possibilité ñu téyewaat euh, mooy yegg moom c'est fini très bien c'est-à-dire que euh, dof sax c'est récupérable waaw moom laa am na mën nañ ko récupérer waat léegi dof sax c'est toujours rationnel quoi hmm. mais am na foo xam ne moom c'est vraiment foofu mooy terminer su dof daal est-ce que duñ dem xool. Euh, waaw waaw waaw waaw affaire Freud. waaw dama bëgg suñu indi ko fii sax quoi parce que defe naa katake yi waaw xam nga yële. Hmm. dama daan dof. moo naa wax folie philosophique. Hmm. dama daan dof. Hmm. waaw tey nag dama bëgg a katake nii. mën na am romb daal waaw tey dama bëgg romb dof xam nga dem ba ca katakayndi daal fay toog nag di wut saf sama xeer daal fay toog nag waaw kon donc donc euh, bu dee xam nga dof sax la hmm. Souleymane fay doon wax hmm. ca dof Souleymane fay nee na ki dof dofut hmm. ñi dofut ñoo dof kon donc dof sax des na ko mën a gérer gérer mais katakayndi nag moom woo foofu moom <laughs> amul lay <laughs> foofu moom. <laughs> foofu moom waaw waaw waaw mi ngi noonu daal voilà foofu nag moom. Eh, moom mi ngi noonu tey bëgg dem tey fa laa bëgg a dem. tey moom damay katakay nii rek. daal di toog foofu ko pour wax waaw pour wax lan. Hmm. ah ba yi nekk ñu di waxtaan négociation négosiation ah. négociation mais grand. Hmm. Euh, da nga ma wax ni Ayib Daffé. dafa dem DGE. waaye ñu gàntal ko. mu jóge fa dem euh, DAF. ñu gàntal ko. Hmm. mu jóge fa dem. Sénat CDC avant. Euh, waaw CDC euh, ñu nangu ko. jox ko ko dem ba ca yoon ba daal koy dogaale. waaw <laughs> ne ko indil li nga indil <laughs> liñ la joxoon. xëyaatee tey tamit <laughs> demaat waaw xam nga dañ ko gàttalaat yoonu euh, dañ ko mayee nangu loolu la ñuy wax ci gone bañ nekkee gone mayee nangu ñu may koo pare nangu ko xam nga mayee nangu moom amut. Ah tey nga ni ma ba mu demee ca gaañee way waa hmm. Sénat. Hmm. Euh, nga ni foofu dalal ko dalal nañ ko. waaw foofu te euh, li fi bàyyi Sénat. bàyyi fi DGE bàyyi fi DAF mooy la Jóob Jóob Njaga waaw Jóob Njaga ab boroom xam-xam la bu dëkk Kër Moussa ci côté Thiès waaw li fi indi DAF hmm. DGE euh, ba ci CDC hmm. moo fi indi Sénat ndax hmm. ñoom dañuy woote Sénat di woote ndax Jóob Njaga dafa ne woon dañu ko ne woon Diop Ndiaga da daan wër di defi conférence ci àllub euh, Thiès gi noonu mu ni li fi indi si indi fi Mbàkke yi moo fi indi Diop ji ñoom dañuy woote man damay woote <laughs> xam nga li ma la kon donc daf ba day woote hmm. euh, fi DG ba day woote ñii ba day woote léegi hmm. lu tax ñii doxe nii ñee doxe na neen est-ce kon donc am na lu tax. am na lu xew ndax Souleymane Faye nee na léeg mu xiin ba nga defee ni day taw. mu daal fay doxee naaj Souleymane fay nee na am na lu tax <laughs> des fois mu naaj ba nga foog ni dootul taw mu démarré di xiin kon am na lu tax. Hmm. des fois nag mu boole ko di naaj di taw kon am na lu xew. fi mu toll nii mi ngi naaj di taw. <laughs> xam nga c'est contradictoire ñii ngi bañ fii ñii nga nangu fii. kon am na lu xew. am na lu xew. <laughs> am na lu xew waaw. parce que mënul doon nii. très bien une décision de justice bu génn. alors que président Macky Sall ñu ngi fa d' maa ngi gis sax ci réseau yi ñu koy rappeler. le trois discours am ba. dafa ne je ferai en sorte de faire respecter. Absolument. les de justice. xam nga euh, boo ko xoolee. Hmm. ci ni mbir mi di demee rek nga xam ni euh, xam nga le euh, le charme de Katekeni. Katekeni oui Katekeni. oui c'est que day day xeeñtu affaire yi ko <laughs> xam nga dof xam nga euh, c'est quoi la différence entre un sage et un fou. Le sage, il sait ce qu'il dit, le sage. Mm. Il sait ce qu'il dit. Mais le fu ne dit que ce qu'il sait. <laughs> firi waaw. ndax le sage. mooy ki xam. moom lu mu wax rekk xam na ko. Hmm. lu mu wax rekk xam na ko. waaye dof. Hmm. lu mu xam rek lay wax. lu mu xam rek lay wax dof lu mu xam rek lay wax mais katakeet yi nag. Hmm. da koy. da koy xeeñ <laughs> <laughs> moo tax katakeet yi c'est un état boo xam ni. Euh, des fois il faut y aller hmm. bien d'y aller ah. waaye dellu boo fa demoo acte yi gars di poser foofu la yóbbu. su ma la su ma la su ma la. Euh, katakee ni moom kenn du ko toppee dara c'est que yéen seen <laughs> Sénégal euh, un en démence ngeen di wax. Euh, il n'est pas poursuivi ah. yëgul. dara waaw à plus raison nag katakee nii. ba pare citoyen de Saraba kooku <laughs> kooku moom kenn du ko toppee dara kooku moom nañ ko bàyyi mu <laughs> dem rek quoi xam nga soo ko xoolee ba ci biir. Hmm. Hmm. et si waxtaan am na te peut-être waxtaan bi. dafa tagga tempe fu ndaw rek fu sew rek fu sew rek parce que à l'état actuel je me je me dis que le président Macky euh, mi ngi doog a daj nag le principe de réalité le principe de réalité bi mooy xam na ni mbërëm mi du am dara te kon euh, nañu waxtaan même bu fekkee sax ñu bari jàpp nañ ni wees na mhm. mais nañu waxtaan léegi nag waxtaan boobu li koy lal mooy dama la waxoon benn fan ne la nguur goo gis ci àdduna loolu c'est les traité de sciences politiques qui l'enseignent régime boo gis quel qu'en soit alpha ci adversité yu mu am su fekkee mi ngi ŋànk toujours ñaari mi ngi téye ñaari bu ma ragal dara coow li day metti rek mais at the end of the day kenn du ko fa déjjati xam nga mooy lan mooy justice ak force de défense et de sécurité régime boo xam ne na la ñëpp bàyyi grand hmm. yow nga am justice am force de sécurité coow yi day bari rek mais loo bëgg nag xoolal kenn du la fa foqati léegi nag dama ko waaw ah, xam nga bu ma ko kiyee dama naan président Macky Sall dem na ba sentir ni ñaar yooyu ko téye woon dañuy commencé di ko lâché te kon ñooñu bu ñu ko naree lâché mieux mu teel a anticiper dem waxtaan parce que après foofu nañuy mujjee. Hmm. ndaxte justice bi nga xam ni euh, nii mu taxawee ci fan yi dañoo am ñaari façon justice waa Jamaïque ak waa Indoga. Ah, est-ce que comprendre ko yàgg faram très bien te waa Indoga ils sont. presque minoritaires est-ce que hmm. même s'ils sont beaucoup plus puissants parce que du point de vue hiérarchique ñoom ñoo féete ca kaw mais du point de vue démographique du nombre ils sont minoritaire hmm. waa Jamaïque sont majoritaires et c'est sur eux que repose le système est-ce que comprendre nga te peut-être président Macky Sall toog na ba yàgg xam ni mbiiloog mbaaloo bi am fii hmm. waa première instance di wax lii waa Jamaïque di wax lii waa Indoga di wax lee fu muy mujjee mooy union xam ma lan supérieure des magistrats noonu lay tuddee UMS union ah, des magistrats du Sénégal bis bu ci duggee rek mm. après beneen cas la justement c'est-à-dire très bien tamit très bien c'est que UMS boobu ba léegi mm. peut-être mi ngi dëgg bal bi et peut-être que président Macky Sall mën na anticiper xam ni affaire bii bu ñu ko teelul lijjanti ba UMS dugg ci mm. léegi nag day nekk benn fait inédit mooy ce qu'on appelle une crise de la magistrature te kon su boobaa ça peut remettre en cause beaucoup de choses. mooy li nga doon wax naan attention. ou attention et cetera. avoir très bien d'ailleurs sax booy xool yenn lectures yi de biir. très bien parce que amul lu mu nekk di. très bien te léegi booy yi waa Jamaïque waxoon naa la ko ah. hmm. ñoom bu ñu xëyee def seen lii <laughs> léegi après ñoom leen neex nañuy taxawee ñoom ay guerrier ne ñoom seen yoon nekku ci xam voilà bu ñu naanee meew dañuy nekk dañuy lucide mais booy ñoom du ñu laal meew ñoom du ñu laal lu saf suukar xam nga ñoom lu saf ko xorom ak kaani rek nañu <laughs> bëgg léegi nag peut-être le président Macky Sall toujours maa nga waaw katakay ni ah katakay ni euh, président Macky Sall danaan gis nga lii de bu ñu xefee hmm. tànk kanam la jom xam nga nu muy jëmee tànk kanam hmm. Euh, ca ña ma gënoon a yaakaar. conseil constitutionnel. ñooy xëy suba nag daat may wan gannaaw te duma ci man dara balaa ñu maa wan gannaaw naa dem waxtaan ak Ousmane. xam nga ñu may wanee gannaaw. parce que comme ñoom ci ordre bii nañu bokk mooy l'ordre judiciaire te l'ordre judiciaire ci affaire bii am na lu mu taxawee. mu leer léegi l'ordre administratif moo fi nekk di jalgati. te man bokkuma l'ordre administratif l'ordre judiciaire laa bokk kon donc damay mën a am benn Euh, xaw ma nu ñu koy waxee nu ngeen koy waxee nag de corps quoi. xam hmm. nga sympathie de corps. Hmm. ba pare deuxièmement ah. su ma kata kay ndee dëgg dëgg dëgg dëgg. ba lekk ceeb ak yooyu dama naan gars yi mën nañ ñi waaye mais Macky Sall bu ñu sonal waaye encaissé nañ ko ba pare <laughs> fi toll xoolal mënalatuñ dara te ñun ay retraité nañ nga lii rek moo ñu fi dese <laughs> après ñu dem dëkk ba euh, sàmmi suñuy nag ak suñuy bëy xam nga dama la. kon donc léegi Macky Sall mënatu leen dara. Ah. ñoom dañuy dem retraite retraité nañu ba pare. comprendre euh, su ma naan encaissé nañ Macky Sall encaissé nañ Sall mooy tabb na leen ba pare. waaw te mënatu leen fee jëlee. <laughs> xamul ma la. <laughs> Uh-huh. kon donc Macky Sall c' est sans risque. li Mbaye Dièye di wax ci ñoom. Mm, c' est mm, sans mm. risque. te Ousmane gi mën naa nekk risque. kon donc comme ñoom ordre bi ñu bokk taxawee na nii donc naa def man solidarité de corps de toute manière loolu mooy droit. est ce que comprendre kon donc président Macky su ma katakee ne mën na. anticiper xam ni ah lii lii xeeñ fii. Hmm. bis bu ñu demee ba conseil constitutionnel. ba Ousmane dajale ay kayitam ak fu ne lay foree ay kayitam ñëw jox leen hmm. ñii sëñ nañoo ni Ousmane euh, candidat nga ndax euh, au nom de la théorie de la défaillance de l'État des défaillances des services de l'État est-ce que kon donc voilà buñ ko invoqué rek day dugg kon donc léegi kon da ngay gis ni pexe jeex na te dafa mel ni sax très bien ay dafee ah woo na avocat bi mu ñëw maître Ciré Clédor Ly ñu uh-huh. yoon ak huissier bi. Uh-huh. mu mel ni fépp fu ñu dem rek. Uh-huh. pour constater défaillance bi ngay wax noonu. très bien mu servir ren de absolument dali bi. waaw bi léegi yooyu yëpp la ñu jël xëy na. léegi yow soo xoolee conseil même bien avant ah. très bien léegi yow léegi yow boo xoolee. a deux ordres y a l'ordre judiciaire et l'ordre administratif l'ordre judiciaire ñoom nii nañ taxawee leer na. Hmm. nee nañ Ousmane day bokk. l'ordre administratif moom moo bañ mais conseil appartient à l'ordre <laughs> judiciaire te mënul def neneen. est-ce que vraiment. te mënul contredire. ñooñu di bàyyeekoo ci tribunaux yi ci ci ci parce que ñooñu. kon yow bu ma la déggee en toile de fond même bu demoon eh. cour suprême bii nii ñuy xaar naan chambre réunie yi. na jàll mënul ah day jàll dañ koy ubbi rideau. Hmm. xam nga lima la. léegi nag bu ñu ko ubbee rido ba mu saraas bu àggee conseil mu ne man ne woon naa leen ngeen fàttu ko comme fàttu leen ko ba mu agsi fii keñ na jàll rek <laughs> na dem rek fi ne rek léegi nag loolu lay ki sàll di anticiper. Hmm. léegi nag peut-être que ñi ngi euh, waxtaan loolu loolu moo waral. boo demee fii mu nooy nga ñëw fee mu dëgër nga ñëw fii mu nooy nga ñëw fee mu dëgër léegi nag comme damaa katakay ni moom. lu ma neex laay wax n'est-ce pas. oui yaa ko resté katakay ni waaw katakay ni kenn du ko toppee dara waaw kenn du ko toppee dara. waaw katakay ni moom kenn du ko toppee dara surtout que man j'ai pas la citoyenneté du Sénégal. c'est ça man Saaraba laa yor seen citoyenneté. te ñi ngay waxal ñi yegg sa degré rek ñoo la mën a dégg. man waa Saaraba laay waxal waa Sénégal waxuma ak yéen. c'est une procureur man mm-hmm. waxuma ak yow. procureur Sénégal waxuma ak yow man waa Saaraba laay waxal les citoyens et les juridictions de Saaraba. moi je ne suis justiciable que de la justice de Saaraba Saraba <laughs> du Sénégal waaw d'ailleurs ba émission bi sax tey Saraba dañ koy enregistré ah, donc c'est pas sur le territoire du Sénégal ah, très bien la compétence la compétence il faut mu leer très bien pour mu leer dama léegi suma katakay ne hmm. eh, ba xeeñtu affaire yi xam nga hmm. dama naan waaye négociation bi de hmm. euh, euh, président Macky Euh, danaan ko wax mais may may boy Ousmane mu ne ko waaye ah, may grand ma kii léegi luy dil bi nag léegi. <laughs> ah moo koy laaj. waaw ma pas le contraire. ki nekkoon léegi waa mais boy fils luy dil bi nag gars yi yow it xam nga. Hmm. Ousmane ni ko amee ah, yow laay déglu tegal dara ci taaw li rek ñu waxtaane ko <laughs> yow xam nga ni réeroo amul <laughs> ñàkk waxtaan amul xam nga xam nga bu ko defee Macky ne ko waa mais léegi xoolal dil bi nii la c'est xolool da ngay bokk gars yi man yi fi jot a xew yëpp tokaar yi ñoo ma ci dugal xam nga gëmloo ma ay affaire xam nga. Hmm. d'ailleurs fan yii yëpp may ma leen jàmm xam nga. Hmm. maa ngi leen di kii yooyu yii yëpp mënoon na bañ am mais xam nga tokaar yi ñoo ma ko mais ñooñu moom bàyyil naa régler seen affaire léegi nen nag laay régler seen affaire mooy xoolal dangay bokk comme ça balaa midi nga lijjanti leen. waa léegi daal fils man noo may lijjantee nag yow tamit <laughs> xam nga xam nga. ku eh? defee Ousmane ne ko waa mais grand loo bëgg yow loo bëgg rek yow borom baax nga seytaane fi jaar rek mais yow borom baax nga léegi wax ma loo bëgg ku defee Macky ne ko waa mais rek xam nan lay demee ah hmm. d'abord njaboot gi ah man mm, soxna si ah, euh, ñoom Amadou ñooñu hmm. waaw ñooñu moom xolal waaw ñooñu moom waaw dama bëgg daal ñoom nañu ko def quoi ñoo ñu féete boor. waaw ñeneen ki ci des nag mooy sama booy bi sama rakk ji quoi booy Alioune. Hmm. waaw booy Alioune tamit xam nga moom daanaka sax yoonam nekku ci woon man maa ko taqal ci affaire yi hmm. ba mu taq ci lépp ni Tapha Tine di wax mais moom sax yoonam nekku ci. Hmm. te xam nga rek deret dafa fort quoi. xam nga mais léegi moom dama ko bëgg tamit nga dóoral ma ko euh, kii bi quoi. man ñaari cas yooyu laa am mais maram tamit dafa am cas ci biir cas xam nga man sama xam nga soxna si moom bu amee cas rek man damay am cas quoi xam nga Macky dafa galan xam nga coow <laughs> mag yi naan tela gis nga gis nga gis nga gis nga biñu demee stade mu ni ko Mariam gars yi yuuxu mu ni ci la boox <laughs> léegi nag xolal da da ko naan waa mais xolal mais soxna tamit ci la boox tamit moom dafa am cas mu benn cas rek la am muy Mansour quoi <laughs> léegi yow xolal yow coachel ma yooyu quoi xam nga <laughs> bu ko defee xam nga xam Ousmane borom baax la. Hmm. Ousmane ne ko no léegi xoolal yooyu yëpp day xaw a bari quoi. ci cas yi mais Ousmane dina ko laaj. ñooñu waaw Ousmane léegi voilà très bien léegi Ousmane. lu xew léegi lii la ko luy dossier yi très bien léegi loolu laa loolu laa lay hmm. kii nii Ousmane da ko naan waaw mais xoolal grand. waaw loolu lépp li nga wax yëpp moom naa dégg naa ko quoi hmm. te lu war a mën a nekk la mais ay timing lay nekk quoi. Ah. léegi yow sa wàllu bopp yow yow man loolu man mën naa ko coacher quoi yow suma waay nga xam nga réeroo moo fi am rek ñu kii ni mais yow suma gaayen nga léegi yow sa immunité présidentielle ak yooyu danaa ko togg yow mais ñi ci des nag moom ñi ci des nag moom waa ku ne danga may bàyyi nag ma xool ak sama gars yi après ñu xool quoi ku ci nekk en fonction sa euh, degré implication ci affaire yi ñu xool quoi su fekkee c'est gérable on le et cetera mais daal man daal hmm. euh, garantie bi ma la mën a jox daal hmm. mooy yow sa jëmm ci comprends nga. mais ñeneen ñi nga ma wax ñëw ñëpp daal mais ñooñu daal mënuma la jox garantie. kon donc affaire bi foofu la xaw a tagga tembe quoi. Ah, voilà xam nga. moom lay xaw a tagga tembe léegi léegi xam nga. léegi nag bon euh, comme. parce que li tax nga koy waxee noonu. ci Ousmane Sonko mooy. Mhm. xam gi nga xam li mu wax publiquement. ñëpp dégg léegi léegi Ousmane bu ko wax. ne luy boppam non Ousmane. waaw liy boppam. mën naa ah. baare yàgg na ko. waaw non très bien mën naa baare très bien waaw mais li jëm ci réew mi. très mais mais Ousmane bu ñu utiliser bopp ah. li nga tax nga wax ko. Ah, parce que après mën nañu ma da naan euh, li nga kat a kay ni. ba ba ba ba yegg ci ci niveau boobu nga xam ne lu mel ni non non c'est clair. xam nga xam nga soo soo waxee.